bu ñu fi gisee ay télévision yoo xam ne ay TFM ay 2STV yeewuñu askan bi ci dara dara dara dara dara lu dul ay affaire yu ñàkk fayda ku fi gën a ñàkk fayda rek moo am bës dañu waxante dëgg ay ay ay Pod et Marichou mais théâtre boobu lan lan lan lan lañu yee lan la yee sénégalais lan bi mooy quatrième saison ay affaire mbëggeel la ñuy wax ah man maay pod maa amoon ñetti jabar ñetti jabar yi fase naa leen ah léegi jabar benn jabar bi woo na ma pour ma ñëw jàppale ko beneen jabar bi ma xam ne biti la xaw ma ñëw noonu mais mais affaire bi dafa vide dafa vide man ma keroog éggaluwu ma sax deuxième épisode bi pourquoi Pod et Marichou duñu duñu wax ci pétrole bi lu tax wiiri wiiri ñu wax duñu créer ay ay émissions yoo xam ne par exemple dañuy wane ay jeunes entrepreneurs ñu nekk dans le milieu du pétrole ñu wax yenn façon liggéey moo ci mën a am mais noonu la ñuy yeewee nit ñi Macky moo gën a xam li am ci pétrole bi Aly Ngouille Ndiaye moo leen gën a xam li nekk ci pétrole bi Aliou sal moo leen gën a xam détails yi ñoo leen gën a xam milliards yi ci nekk ak Sénégal lu mu ciy am wala lu mu ci dul am waaye waxuñu ko est-ce que xam lu tax waxuñu ko parce que kenn sonnul leen ci ñoom nag ñi ngi liggéey seen liggéey ñoom Macky Sall ñi ngi liggéey seen liggéey di def li ñu yaakaar ne moo gën ci Sénégal ñoom ñu koy def Macky Sall bu demee ba wax ne dañuy sax xaalis sax dañ denc pour pour pour génération yi di mais ñun xamuñu ñaata lañ ciy denc parce que kenn waxuñu ko xamuñu plateforme yi fi ñu nekk xamuñu Cosmos parce que xam nañ ne Cosmos euh, ñoom ñooy defar plateforme yi te wax naa la dafa cher xam naa la am na benn benn spécialiste démb maa ngi doon lire commentaire yi Ibrahima Ibrahima Pleya waxoon na ma ko dëgg la waa jooju mi ngi tudd Fari Ndaw gars yi boo leen paree. boo leen pare ci live bi dem leen ngeen seetaan Farid Ndaw benn jeune sénégalais quarantaine ah bind na sax livre ci pétrole Ibrahima nee na ma géologue la mais géologue ñoom ñoo xam suuf ñoom ñoo xam lan moo am pétrole xam na gaz moom dina leen wax yépp moom dina leen wax ne contrat yu ñu signé yépp baax contrat yu ñu signé yépp baax mais opposition bi dañuy ñëw fii di ñu wax ne contrat yi baaxul comprendre qui en 5 jours, je me suis tapé toutes les saisons de pod. Je voulais être au courant car tu as fait des vidéos sur cette série. Ce n'est pas vide. Ce n'est pas vide. ce n'est pas vide. Il n'y a que des euh, pubs de Khessa. Donc c'est vide. Quand <laughs> c'est vide. Il n'y a que des pubs de Khessa. Publicité, Nous, ils se font de l'argent. Sénégalais, tu nous sont ñoom Pod waxatuñu dara ñoom seen ah mais ñoom may may man dama leen di félicité parce que ñoom macha allah ñu ngi def am nañ produit boo xam ne ni ñu bëgg nañ ko nit ñoo ngi koy seetaan waaye Sénégal yi nañ ci toog rek ñun Youssou Ndour di ñu génne ay album Wally Seck di génne ay album ah ñu nekk fii rek di fecc ah di seetaan ay Pod ay Marichou waaye petrole bi gaz bi xamuñu ci tous tous xamuñu ko ci dara xamuñu ko. ndax opposition bi ñi xam ne ñoom ñoo ñu waroon yee ci ci ci ci ci ci ci euh, ñoom Sonko ñi nga xam ne ñooñu ci war a yee ñoom yeewuñu ci ñoom nekkewuñ fi dara lu dul wax ay dañoo sàcc ay six mille milliards ay sama quatre cent mille loolu c'est vide loolu c'est très vide même Fare Ndaw Fare Ndaw moom wax na ne pétrole bi xam nga ñaata lañ ciy am par an bu yëf yi commencé dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg Sénégal dina ci am 600 milliards côté yoy dal entre côté ay 600 milliards par an mais loolu bëriwul gars 600 milliards du tous du dara ndax ñun suñu budget rek suñu budget rek waxna len presque ay 4000 milliards kon ñun ñu fi nek yépp di ñu lo nan pétrole bi bu ñëwé dëkk bi day naat patati patata Sénégal gaz bi bu fekké li Farida wax dëgg la ak ñom Dramé li ñu wax dëgg la té ñom ay expert lañu

pour le moment naa yemagum foofu mais li ma leen wax rek mooy fari Ndaw moom na ngeen dem ngeen seetaan ko ngeen dégg ko bon Kira agsi na Malick Dia mi ngi fii Ndiaye Cheikha nee na mënta benn Macky Sall Aliou Sall